alors comme ni ñu ko waxee tout à monde rural bi jax na lool ñu gis ni que lépp li nga xamante ni dafa ñeel campagne arachidière bi comme chaque année euh, dafay am coow yoo xamante ni dañu ci nekk lan moo waral euh, nguur gi di am difficulté pour trouver consensus ak paysans yi surtout ci njëgu kilogramme bi. Euh, no yaakaar naa nguur gi amul problème pour trouver consensus ak béykat yi ndax du nguur gi mooy def proposition prix yi. Mhm. Euh, njëg yi ñi nga xam ne ñoom ñoo seq filière bi te ñu nekk ci biir CNIA euh, muy commité national interprofessionnel de la l'arachide mhm. nga xam ne Sonacos mu ngi ci yeneen huiliers ñu ngi ci euh, organisation paysanne yi ñu ngi ci ñeneen ak ñeneen bokk si ñooñu bu gerte gi ñoree ñoom ñooy tasante xool cours mondial bi xool ren ñaata la ñu war a jaayee njëg gi mhm. par exemple ren bi ñu wootee ndaje moomu Euh, Sonacos euh, teewoon na ci euh, am na yeneen huiliers yu ci teewoon bon mais ñun bi nga xamee ne laaj nañu suñu xalaat dañ ne lu mu néew néew nañu jëndee kilo gerte bi ñeent fukk ak ñaar mhm. am na yeneen huiliers yu nga xam ne ñu ngi woon suñu wet ñoom dañ ne woon nañu ko jëndee fanweer ak ak ak ñeent am ñeneen ñu wax loolu leneen ñu nekk di waxtaan di waxtaan ba ne daal ñi ëpp daal nee nañu nañu proposer gouvernement bi mu jënde ñeent fukk ak ñaar mhm. maa ngi naan sànq ñeent fukk ak ñeent mais ñeent fukk ak ak ak ñaar mhm. alors ñeent fukk ak ñaar yooyu tamit ñu jox ko ministre de l'agriculture et de l'équipement rural mu jébbal ko président de la république ci conseil de ministre ba ñu génn conseil de ministres bi décidé ne mhm. deux cent dix yi muy ñeent fukk ak ñaar bi moom la ñuy arrêté mais prix plancher la ñu bari nag dañuy euh, fàtte plancher ndax prix plancher Euh, mooy ku mu neex nga jënde lu ëpp ñeent fukk ak ñaar mhm. mais kenn sañul jënde lu yées ñeent fukk ak ak ñaar kon nga gis ne nguur gi moom moo ubbi marché bi nguur gi moo may tey ku mu neex nga jaayee juróom fukk ku mu neex nga jaayee juróom benn fukk ku mu neex i tamit nga jaaye lu ëpp loolu walla nga jëndee lu ëpp loolu mu mel ne bi ko nguur gi di def li mu xalaat mooy jàppale baykat bi jàppale ki nga xam ne moo ci gën a sonn jàppale ki nga xam ne moom moo ci ñaq jàppale ki nga xam ne tamit ci lii la yaakaar pour gérer njabootam gérer këram gérer ay mbiram ba nawet bi di di dellu si kenn mënul accuser gouvernement bi ne moom moo tëral nangam wala nangam lu dul gouvernement bi daal nee na ku mu neex nga jëndee lu ko tàmbalee ñeent fukk ak ñaar jëm kaw mais kenn amul droit wàcc ñeent fukk ak. Euh, mais ci ci yan paramètres sukkandiku pour fixer prix bi par exemple 210 yi. waaw xam nga paramètres yi mun na bari par exemple mën nañu xool tey soo ko doon calculer euh, kilo gerte ñaata lay jar ci biir àdduna bi euh, ñun def nañu calcul yi parce que bu ñuy calculer kilo gerte comme gerte ci boppam kenn côté wu ko. Mhm. ràkkal aussi kenn côté wu ko li ñu côté mooy huile brute d'arachide tey boo jëleen fii benn tonne. Euh, dëwlin bu gerte nga dem jaaye ji ko Rotterdam fële ca Hollande nga départ ca baykat ba ba mu ko bayee ba nga ko transporté la nga fay ko ko transporté nga xool yow nga xool liggéeykat yi ci liggéey xool machines yi nga xam ne ñoo ko doon euh, liggéey la ñuy jar lépp lépp nga natt ko buñ ko nattee tey ji ay la yéwén kilo gerte fanweer ak benn la waroon jar mais gouvernement bi ne xalaatul Euh, di wax paysans yi ne leen kilo gerte fanweer ak benn lay lay lay jar mhm. lu mu gàtt gàtt na mat ñeent fukk ak ak ak ñaar ku mën a am lu ko ëpp sax gouvernement bi permettre na la nga nga nga jaaye loolu donc ci gàttal jàpp naa ne état bi euh, le président Macky Sall en en tête mhm. li leen soxal dëgg-dëgg ci mbir mi mooy na ci béykat bi gis euh, gis boppam. Khady ma lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs yi di nuyu suñu gan président euh, di la remercier encore une fois Fatou Abdou tamit ma koy nuyu mm-hmm. alors tey wax nga ni gouvernement bi proposé na 210 pour jàppale baykat yi mais baykat yi ñoom bëgguñu loolu parce que jamono ji ñi ngi jënd ñi ngi jaay seen gerte chinois yi te léegi est-ce que loolu su continuer nii du rey entreprise locale waaw xam nga no encore une fois gouvernement bi proposé wul 210 gouvernement bi daf ne lu mu yées yées deux cent dix. d' accord kon ku mu neex waxtaanee nañu ko ba d' accord ci prix bi. d' accord mais jamono ji mais li ñu d' accord sax mooy ku mu neex nga jënde lu ëpp deux cent dix. loolu la chinois yi di def. loolu la yeneen opérateurs yi di def ci ci ci ci kaw gi. mu nekk c' vrai lu nga xam ne euh, bu ñu ci continuer bon baykat bi moom li mu gis mooy teew mi teew mi li mu gis mooy euh, li li teew. Euh, fu njëg yi gën a duune foofu lay yóbbu yóbbu gerteem mais nag c'est la loi de lof et de la demande xaj na tey jamono ji ñu toll demande bi forte na offre bi xaw na néew moo tax njëg yi yéeg mais xaj na daañ dem ba ci kanam demande bi wàññeeku offre bi yokku njëg yi daanu donc euh, loolu moo tax ma ne pour le moment nañu bàyyi baykat yi ñu gis ci seen bopp maintenant bu ñu demee ba ci kanam entreprise yu mel ne Sonacos ak yeneen entreprise yi du ñàkk yi tamit balaa campagne bee jeex parce que campagne bi mu ngi tàmbali mois de décembre mais mu ngi jeex mois d' avril. du ñàkk balaa campagne bee jeex aussi. Sonacos mais monsieur le ministre bu ñu continuer noonu est ce que tey loolu du rey industrie locale bi. waaw non déggoon nañu def seen conférence de presse alerte ni waruñu bàyyi chinois yi ñëw di jënd gerte gi. voilà xam nga travailleur Sonacos yi ñoom ci seen droit lañu nekk parce que ñoom li ñu gis mooy su Sonacos amul gerte amul matière première. usine bi du mën a tàkk duñ mën a defar dëwlin duñ mën a am ràkkal duñ mën a am xaalis bu ñu leen fayee parce que ma fàttali ne sonakos mooy fay salaire boppam sonakos yorul budget bu nga xam ne euh, dañ ko ko nattal pour muy fay ay liggéeykatam sonakos ci li muy liggéey ci lay fay ay liggéeykatam ci lay fay ndox ci lay fay courant ci lay jëndi oto ci lay liggéeyee te li nga xam ne moo ko sos mooy matière première bi muy gerte donc bu ñu amul gerte effectivement dana nekk lu nga xam ne luy diis la ci kuréel bu mel ne sonakos mais ñun nag euh, dañu jàpp ne àggaguñ fu nga xam ne dañ naan sonakos du amagum du amagum gerte. Mhm. parce que nee naa la léegi campagne bi ñeent ñeenti weer lay lay lay lay durer fi mu toll nii fukki fan ak juróom dong moom moo moom moo demagum euh, xañ nañ euh, suñu mbokku chinois ak ñeneen am nañ seen i pexe seen pexe bi ci njëkk mooy njëggu cher gi. Mhm. xañ na yoruñu ay bascule yu baax. yoruñu tamit ay instruments de mesure yu baax mais ñun tamit am nañ suñu yeneen pexe yu nga xam ne daañ ko dérouler daañ ko tëral suñuy stratégie pour ñun ñu tamit am ci gerte gi lu nga xam ne daañ ci mën a dundal jël ngeen justement ay matuwaay parce que tamit munu leen ni euh, campagne bi demagul fenn foog naa am ngeen douze xaw ma treize jours jamono ji euh, dañuy wax ni heure bi daana fekk ñu am cinquante mille dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la c'est-à-dire bu ñu jëlee li ñu am ren li ñu amagum ba bii may wax ak yow mu ngi toll ci mille tonnes mille tonnes yu teg juróom-ñaar fukki kilo ak juróom bien entendu soo ko nattee ci daaw jamono bi bu fi tollee amoon nañu lu ëpp trois mille tonnes donc li muy wane mooy euh, le quinze euh, décembre daaw bi ak quinze décembre ren bi bokkul mais nag nawetu daaw bi aussi ak nawetu ren bi euh, bokkul parce que ñëpp gis nañ ne at yi ñu passé yëpp nawet bi Euh, dafay dafay mooy gën a teel a ñëw que daaw par exemple bi nawet bi di commencé te ba jamono yi mu wax yéen aussi am na ci gox goxaan yu bari yu nga xam ne pareeguñu liggéey bi xañ na boo demee ci booru noor bi muy bëj gànnaaru réew mi mën nañu wax ne ñooñu pare nañu waaye li wàllu li jëm ci bëj bëj saalumu réew mi jëm yi tamit booru Kolda booru Casamance liggéey bi paregul nit ñi pareguñu pour bees ba bees euh, pareguñu bees seen euh, seen gerte yi moo tax ñun suñu xel ba léegi euh, euh, ñàkkut a ñàkkut dal loolu parce que jàpp nañ ne buñ demee ba ci kanam ak mesures yi ñu jël parce que li gouvernement bi waroon def yépp ci campagne bi def na ko bi ci njëkk mooy dajale ay financement teel koo dajale financement yu nga xam ne yu am solo la yu takku la ba jamono ji ñuy wax ak yéen teggi teg ca la ñuy def ku joxe sa gerte Sonacos ca suba ga ñu. yónnee la sa check nga nga jël loolu tamit musu fi musu fi am musta doxee noonu ñaareel bi banque relais buñ daan toll ci jamono bi moo daan financer campagne bi maanaam dañuy leb ñaari yoon dañuy leb banque relais yi pour jënd gerte gi xaar banque islamique jox nu financement yi ñu fay banque relais yi mu amoon ñaari taux d'intérêt ren nag teel nañoo jot ci euh, koppar yi tey ñun ñoo dénk banque yi suñu xaalis ba nga xam ne lu ñu jaay mën nañ ko mën nañ ko fay mu nekk ay nouveautés yu nga xam ne jël nañu ko pour que campagne bi jaar ni war a jaare leneen li ci topp mooy suñu centre de réception intermédiaire yi muy ay bërëb yu nga xam ne ay seko yu mag la ñu taxawal ko ci yenn dëkk yi nga xam ne daawuñu ko fa taxawal fu mel ne Kaffrine fu mel ne Kolda fu mel ne Tambacounda ngir gën a mën a jege baykat bi ngir mën a jege producteurs yi ngir yi tamit wàññi bu baax a baax temps bi nga xam ne opérateur bi daana ko am pour jëlee gerteem Tamba di ko yóbbu Kaolack wala jëlee gerte na Yoro Fula di ko yóbbu Ziguinchor donc yooyu yëpp euh, jël nañ suñuy dispositif ba nga xam ne li ñu waroon def euh, def nañ ko léegi nag mu des euh, Sénégalais yi opérateurs yi baykat yi ñu am patriotisme économique xam ne suuxat Sonacos suuxat seen réew la suuxat Sonacos jàppale ay sénégalais ay borom kër ay pères de famille mhm. ñu nga xam ne ci la ñu yaakaar pour mu mu taxaw la bu ko defee nag gëm nañu ne. Euh, loolu dina mën a alors monsieur Diagne est-ce que mënuñu wax ne y a problème bu ñu demee ba euh, paysan yi di daw li nga xam ne mooy point de collecte yi di daw ndax dem jaay seen gerte Touba à deux cent soixante francs le kilogramme ak yeneen dëkk yoo xam ne fu ci mel ne. waaw filière bi moom filière bi moom war nañu ko organiser filière bi war nañu ko organiser parce que euh, réew moo dem la nga xam ne mooy indi seen koom-koom parce que filière gerte. moo taawu réew mi ndax filière gerte moo taawu produit intérieur brutu réew mi filière gerte moo taawu taux de croissance su réew mi filière gerte moo ëmb koom-koom bi parce que gerte duñ ci ci dara ngooñ mi gerte kook gi amande bi même xob bi ràkkal ji dëwlin brut bi dëwlin rafet gerte duñ ci ci dara donc bu ñu ko yàlla wërsëgalee nga xam ne bu njëkk sax dañ ko naan l'or orange wala l'or rouge dafay nekk lu nga xam ne dañ ko war a saytu ba organiser lépp organiser lépp mooy jamono ji jamonoy exportation la jamono ji jamono reconstitution capital semencier la jamono ji société nationale yi dañoo war a approvisionner dañu war a jënd li ñu soxla jamono ji nangam ak nangam ak nangam gëm naa ne filière bi xañ na ren bon ñun mois de mai la ñu ñëw ci mbirum mbirum gerte maa ngi wax dem sama benn xarit ma ne ko man su ma nekkoon nekkoon fi ministre rek ba ba retraité te nekkuma directeur général Sonacos lu baree baree bari dama ko xam ci wàllu mais est-ce que tey Sonacos tey li nga xam ne moom lay dund jamono ji yaa ngi koy wax daaw heure bi fekk na ngeen am lu ëpp li ngeen am tey ñu ngi wax daaw plus 2 millions de tonnes boo xamante ne gerte am na ko ren du mat sax 600 000 tonnes euh, bul xam lan la ci Sonacos di am est-ce que mënul nësaxal kër gi nga xam ne moom nga jiite ñaata tonnes moo am nag moom kooku damay bàyyi waa ministère de l'agriculture. Mhm. ñu annoncé chiffre officiel. Mhm. def seen i estimation def seen i def seen i calcul ba ñu xam ñaata tonne gerte moo ñor ci biir réew mi. Mhm. bu boobaa kañ na daañu. gën li ngay wax na nawet bi ren noonu. donc non euh, non li ñuy am dina wàññeeku. par rapport mun na nekk. mun na nekk mais kenn xamagul tey ji officiellement. ñaata tonne gerte. moo ñor ci ci réew mi mais li ñu xam daal mooy. bu ñu ne woon jamono jii bala ngay laax jaay da ngay laax lekk jamono ju njëkk ji nañu bàyyi Sonacos ak huile ñu jël li ñu soxla nañu euh, na nañu wax opérateur semencier ñu reconstituer le capital semencier bu ñu defee li ñuy wax de ba pare nag léegi ñu ne ku mën a jënd 400 euh, ku mën a jënd 500 pour exporter ji bitim réew nga nga def ko je crois bu ñu amoon organisation bu mel noonu dina baax wala boog ñu ne yéen gan ñi. bàyyi leen ba waa réew mi jëfandiku li ñuy jëfandiku ba pare su ko defee nag ku mel ne Sonacos ngeen seq ak moom mu jaay leen ngeen dem. exporté donc bu mooy lajjite am na lajjite moo tax ñu yaatal marché bi ba tey chinois yi dugg ci. non dem ay euh, euh, point de collect yu. bari xam nga man damay comprendre aussi ne. bu ñu nee am nañu am nañu million ak nangam ciy tonnes. Mhm. ñu ne Sonacos ñaata nga mën a jënd mu ne cent cinquante mille tonnes yeneen huiliers yi ñu leen ñaata ngeen jënd ñu joxe seen lim buñ ko dajalee du nekk sax ceeru. li nga xam ne moo ñor donc damay comprendre nit ñi ne nañu bàyyi aussi exportation bi ak gan ñi ñu jël li ci des parce que béykat bi moom bëggul gerte gi des ci loxoom te gouvernement bi aussi bëggul Euh, gerte gi des ci loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, baykat yi hmm, baykat yi ñu ngi wax ne am na gerte yoo xam ne bu ñu ko jëndee ñëw ba ci bërëb dañu leen di jaay li laaj li nga xamante ne moom mooy ay facture maanaam ay ay ah. papier suñu ko amul commercant yi dañuy fay téye seen hmm. gerte te loolu nguur gi moo nekk xam nga nag xam nga déet déet non non non nguur gi nekkul ci ginnaaw dara xam nga loo gis itam nag dafa am règlement fi mu toll nii jaay euh, jaay ñëpp ko mën parce que ubbi boutique la teg say poti meew teg say leneen ak leneen ku ñëw nga jëndee fukk ne damay jaay fukk ak juróom mhm. waaye nag dañ la wax nga am registre de commerce euh, dañ la wax aussi nga am balance yu baax wala boo dee jaay tusi nga am mètre bu baax mhm. wala boo dee jaay nga am bu baax loolu moom jaay ñoo ànd donc yow mi dugg aussi ci jënd ak jaay aussi war nga sàmmoonte ak loolu nga xam ne moom la yoon wi tëral parce que bu loolu tamit dafay nuru dafay nuru désordre donc maître état beneen bi beneen bi mooy état bi dafa ànd ak seignant ñu ne am nañu mille points de collecte ci biir réew mi junni points de collecte ci biir réew mi ñu identifier dëkk yi ensemble ñu jël liste opérateurs yi ñi nga xam ne parce que loo gis tey ordre des avocats ordre des médecins ordre des leneen dafa am aussi ay OPS ñuy ay opérateurs yi nga xam ne dañ leen a ñu jël liste opérateurs yi séddale leen ci poñ yi kon aussi képp ku nga xam ne da ngay jënd gerte da nga war a départ ci poñ bi nga xam ne euh, seen ñaa daf ko agréé daalal euh, euh, jëlee fa gerte moo xam nga jënde 400 wala nga jënde 600 ak lu la neex jëndeel loolu gouvernement lu la neex jëndeel mais nag na nga jënd ci point de qualité bu nga xam ne dañ koo agréé bu ko defee nga yore sa lettre de voiture lettre de voiture boobu am cachet Sénian am cachet euh, Sonacos am cachet chef de village bi am cachet yi mu war a am yépp nga jaar fi nga war a jaare jële jóge point de collecte dem ci benn centre agréé mm-hmm. mais jël marchandise di di circuler ak moom te doo yor benn kayit bu nga xam ne xamuñu ba xam ne marchandise sàcc la xamuñu ba xam benn réew bu ñu wër la jóge wala leneen donc nit ñi aussi il faut ñuy nangu di euh, jànkonte ak charge yi nga xam ne moom la yoon bi tëral. alors monsieur le ministre ba nga ñëwee Sonacos euh, yàggul euh, nga ñëw fekk fa situation bu doy waar liggéeykat yi am ci yow yaakaar parce que am na ci ñoo xamante ne ni taataan nañu seen i euh, kaddu ñu wax lu mel noonu am nañ ci yaakaar mais fi nga ñëwee jàpp nañu ni baaxul ndax lépp ngeen xaalis lu mat 30 milliards ak ay koppar dugal ko ci campagne arachidière bi nga xamante ne tey jii donte yaa ngi jéem a suñuy xel mais sur le terrain ak cultivateurs yi lu ñu wax ni ñoom dañu tourner le dos ak. gerte gi 30 30 milliards Euh, trent milliards yi moom du problème bu ñu gisee gerte jënd bu ñu gisul gerte 30 milliards yaa ngi ca ña ñu ko lebal. dañ ko fay. non non non non du non xam nga ñu lay lebal 30 milliards bu dee ci wàllu Sonacos da ngay dem Arabie Saoudite nga signé ñoom ne war nañ laa jox 30 milliards. bala ñu la ko jox dañ naan la waaye yan liste opérateur la ñu agréé ci biir Sénégal nga yóbbaa nga yónnee leen liste bi ñu agréé ñu la. tonage boo jënd defal euh, facture yow Sonacos nga yónnee ñu facture bi ñu xam jënd nga ñaar ña nangami tonne nangami tonne yi nga jënd nangam la ci xaalis mu ànd ak document mu ànd ak lettre de voiture yi ànd ak document yi mu war a ànd yépp nga yónnee leen ko ñoom ay tips yow yaa ngi copie ñoom ñu ngi copie ubbi ngeen yéen ñaar compte ci benn banque Sénégal compte bu nga xam dañ ko tuddee Sonacos ay tips yi yéen ñaar yéen ay doxalandoo. compte boobu te bu ngeen ko doxlandoo lii war a génn ñoom xam nañ ko ñaata tonnage la maintenant la fay génn rek mooy li ngeen soxla pour jënde gerte bu fekkee ne dem ngeen ba nga xam ne njënd mi jeex na te xaalis bi jeexul ma nga des ci seen i compte loolu doon indi benn problème li nga leb rek jënde ko moom ngay fay. mais monsieur le euh, ministre justement ci situation boobu bi nga ñëwee Sonacos. la lay wax actuellement nii na nga ko dundee parce que métti na. waaw mais xam nga nag euh, Sonacos xam nga homme politique homme d'État euh, bu ñu koy buy bëgg a liggéeyal réewam du ne rek fu mu nooyee fu mu yombee foofu laa war a dem mm-hmm. euh, président Macky Sall dañu ko jàppale ci élection yi ñu jublu Sénégalais yi fal ko pour mu liggéey mu am ci ñun yaakaar ci fii bu ñu dénk même bu jafee même bu méttee dañ ca war a waslu suñu àq mm-hmm. liggéey ca relever défi bi mm-hmm. parce que tamit man li may motiver mooy défi am na kaay nga relever ko mais bu fekkonte ne lu lu nooy la rek kon yaakaar naa ne du ma motivation bi nga xam ne am na est-ce que tey mënuñu xalaat dindi li ñu dippee taxe à l'exportation ndax gis nañu ne revoir ko plutôt ndax dañ ko dindi woon li nga xam ne mooy privé stockeur yi dem euh, euh, yombal mbir mi euh, tey est-ce que taxul chinois yi xam nga aussi war ñu protéger le marché local xam nga man xam nga man man fi ma toog nii man maay directeur général Sonacos mhm. mais dañu organiser liggéey bi état organisation la mm-hmm. am na mbir yu nga xam ne ci man la aju directement mais am na mbir yu nga xam ne ci yeneen kuréelu état la la la la aju mm-hmm. par exemple loolu ngay wax euh, amoon na atam mu ñëw fii mm-hmm. ñu toog mu yàgg ñu dem conseil des ministres ñu suspendre taxe à euh, l'exportation suspension ba ba léegi moom moo nekk en en en vigueur donc euh, ñun li nga xam ne xam nañ ko ci mooy euh, mbir la mu nga xam ne ci ñeneen la aju ci yeneen kilifa la la aju mais dañu nekk kuréel bu nga xam ne état moo ñu ëmb. Mm-hmm. ren bi ñu xoolee nattee kilo gerte gi ñu ne euh, fanweer ak benn lay jaar ci cours mondial bi mm-hmm. état nañu non moom lu mu yées yées ñeent fukk ak ñaar mënut ñàkk dañoo plié wu ci décision état bi te teg ca ne amul compensation mm-hmm. maanaam fukk ak ñaar yi ci togu duñ leen ko duñ leen ko delloo mais dañ ci plié wu parce que loolu itamit mooy mooy état lii tamit taxe la bu nga xam ne nekkoon na fi gouvernement bi li mu tëral mooy nañu ko ajandi mhm. donc ñun tamit ñu ngi doxal ajandi boobu xalaatoo nañoo dem ba ngeen yokk seen njëkk maanaam dem fekk ji ñi nga xam ne ñoom ñooy paysan yi bu fekkee gerte gi téye nañ ko te nanguwuñ leen ko jaay waaw xam nga loolu yëpp moom euh, ay xalaat la yu nga xam ne léeg-léeg ma dégg ay nit wax ko ci rajo mhm. wala ñu wax ko ci euh, télévision mais ak lu ci mën di xew wax naa leen ko léegi du ñun ñoo fixé njëg yi. njëg yi ñi bokk ci interprofession ngeen ci pour ngeen dem proposer à ce mais benn benn voix benn voix la ñu am ci lu nga xam ne ay téeméeri téeméeri lañu. Mhm. donc euh, du ñun ñoo ne njëg yi lii mooy yees bi te ma rappelé rek ne dañ naan Sonacos 210 mais Sonacos nee naa leen léegi fixé wul njëg yi njëg gi ñun ñëpp ñoo ko fixé ndoo jox ko président de la république mu validé ko ne bu kenn jëndee lu yées deux cent tamit ku mu neex mën nga jëndee wala nga jaaye lu ëpp deux cent deux cent dix bon bi ñu koy fixé wax naa leen léegi aussi ne am na ñu nga xam ne bu ñu sañoon loolu gën a gën a gën a gën a yées loolu gën a loolu gën a yées mhm. kon jàpp naa ne ah bon mbir la mu nga xam ne nañ ci toog euh, waxtaan ci mhm. nañ ci toog euh, diisoo ci mais ñun daal fukki fan ak juróom moo demagum ci campagne bi pour ñun teel na pour ñu mën a wax ne Sonacos dina am gerte mhm. wala du am gerte man moom Sénégalais yi xam nañu ma bis bu ma demee ba gis ne àgg nañ fu nga xam ne Sonacos du mën a am gerte bu boobaa damay waxtaan ak ñëpp ñëpp dégg ne ah ren jii ba ba moytuwul Sonacos li mu doon yaakaar du ko am mais pour le moment àggaguñu àggaguñu àggaguñu foofu. d'accord mhm. alors pour wax ci intrant yi ñuy jagleel paysans yi gis nañu ay révélation yu tukkee ci Moustapha Cissé Lo ak Yakham Mbaye euh, ba nga xamante ne producteurs yi sax ñu ngi sàkku ci ñu ubbi enquête parlementaire wala sax euh, procureur auto autosaisiru euh, j'ai deux questions par rapport à ça bu njëkk bi ndax yëgoon nga ko bi ci des tey lan moo ci sa xalaat. waaw xam nga <clears throat> loolu yi tamit mooy li ma waxoon léegi rek. Mhm. état dafa am nu mu organiser woo. joxewul semence joxewul intrant joxewul matériel agricole loolu ministère de l'agriculture ñoom ñooy joxe semence ñooy joxe intrant ñooy joxe matériel euh, agricole Sonacos rôle mooy seeñaa nee nañ nañu jënde nangam identifie ay points de collecte mu wuti financement di jënd gerte gi loolu mooy rôle Sonacos parce que noonu la ñu organiser aussi Euh, suñuy euh, suñuy mbir loolu tamit dafa jar a leeral parce que ñu baree baree bari tey man ba mu bëggee laaj nan la semence yi tëddee woon nan la intrant yi tëddee woon nan la naag mi tëddee woon sama xam-xam du ca bari mais leer na ma ne boo wowoon monsieur Sané mhm. ah mi yore mi yore euh, mi nekk directeur de l'agriculture mhm. dana la ko leeral ba mu leer nañ naññi parce que man gëm naa ne mhm. ministère de l'agriculture li mu def teg na ko ci fu wóor te li mu def yi tamit xam na ko bu bu baax a baax. maintenant coow lu nga xam ne dafa nekk coowul politique coowul euh, xëccoo coowul ŋaayoo. bien entendu ku mel ne Modou Diagne Fatick say allié la ñu bu ñu demee bay tamante dëmm ci loo xamante ne daanaka sa domaine la ndax ñu ngi wax li nga xamante ne moo ñeel distribution de l'engrais xalaatoo ne war nañ ko auditer. nee naa la loolu nee naa la loolu ndax xalaatoo sa xalaat même si. bu fekkee mais nee naa la loolu nee naa la man engrais wax dëgg yàlla. Euh, joxewuma ko Sonacos joxewu ko joxewul yi tamit euh, semence wala matériel agricole loolu wax naa ko léegi alors la ca euh, nit yëkkati assemblée nationale wala nit yëkkati ko ci rajo yi mhm. li ma gëm mooy su fekkente ne laaj nañu directeur de l'agriculture dana ci joxe ay firnde ak i charte yu nga xam ne mhm. kenn du ko dindi parce que ñooñu fa nekk ñooñu sont des professionnels de l'agriculture sont des patriotes euh, ñi nekk ministère de l'agriculture gëm nañu réew mi bëgg nañu réew mi donc gëm naa ne du ñu def lu nga xam ne dafay suuxal mais révélation yooyu lan nga def bi nga ko révélation moom xam nga fii. kaddu yu loolu moom bon politique la rek xam politique moom. tout est permis. déet je dis pas permis mais kenn ku nekk ni ngay politiquer en tout cas man dans ma façon la politique tout n'est pas permis bon maintenant nag euh, politique la ñoom am na lu nga xam ne ñu ngi koy réglante seen seen biir mais loolu vraiment. yoonu yoonu yoonu. Euh, Sonacos Sonacos euh, nekku ci non dafa si mais allié yoonam mu ngi ci mais allié buy wax aussi dafay tànn fi muy waxee c'est-à-dire du caaginu rek allié dafay ñëw ci micro Fatou Abdou Ndiaye. ah di di di wax. Mhm. di wax yenn yi voilà mais bu fekkente ne ndaje am na réunion am na bu nga xam ne ñun allié ñoo ko seq. mais fóot mi daañ ko fóot suñu suñu biir mais jàpp naa ne fóot mi man en tout cas duma bokk ci nga xam ne dañuy fóot fóot mi ci biti alors monsieur le ministre point de collecte yi ndax mën nga ñu ko wax fii parce que paysans yi nee nañ point de collecte yi ça n'existe que de nom ah xam nga point de collecte du point de ay dëkk la dañ naan mbëlëxe point de collecte la Daaru Musi de collecte la Përi Njaay point de collecte la feneen ak feneen point de collecte loolu loolu ay dëkk la mhm. ay dëkk la yu nga donc ay dëkk yu am la maintenant nag dëkk bii mooy point de collecte officiellement yu dëkk yi ko war yëpp nañu indi seen gerte fii mhm. da ngay dem nag gis ca beneen dëkk bu nga xam ne ñaari kilomètre la nekk ak boobu euh, yeneen baana baana nekk fa di jënd njëgu gën a cher moo tax point de collecte bi Euh, du gis gerte. Euh, parce que bu ñu sukkandikoo ci le syndicat des tra euh, des cultivateurs maraîchers Ibrahima Thiam bi mu fi ñëwee yàggul. Mm. lu mel noonu la wax parce que nee na gouvernement bi à chaque fois bon comme que nee nga bi du moom kese mais ñoom bokk na si ñi nga xamante ne nii bu ñu déclaré campagne arachidière bi ba ni point tel point tel boo demee di nga fa fekk ñu jënd gerte gi boo demee doo fekkeen non non non c'est vrai que c'est vrai que ci 1000 points yooyu ñu dégagé am na ci point yu nga xam ne commencé gu ñoo parce que comme dama leen a leeral léegi ma ne leen du nawet bi bindoowul même chose partout am na zone yu nga xam ne pare nañu tey boo demee parce que gerte soo ko bayee ba pare nga deqi ko nga call ko nga naaf ko nga bàcc ko da ngay bàcc ba pare soog a dem wuti saaku di sol kon mën na jël temps diggante bi mu paree ak bi nga koy sol ci saako mën ko teg ci camion mën a jël fukki fan ak juróom mën a jël ñaar fukki ñaar fukki fan. Mm-hmm. donc c'est normal que moom point de collecte yu nga xam ne bu ñu nee campagne bi ne le 3 rek nga dem fa doo fekk point de collecte. mais est-ce ci def ay communication parce que ñoom tamit dañuy am jafe-jafe yu mel noonu. mais mais bokk na ci tey yéen ngi may invité maa ngi nii di wax yaakaar naa ñu ngi may. mais mais sur la mais sur le terrain bis bu nekk. waa ministère de l'agriculture waa DRDR. Mm-hmm. waa direction suñu agent yi ñu yore yore achat graine ci biir usines yi usine bi nekk Louga bi nekk jurbel euh, bi nekk euh, euh, Kaolack bi nekk Ziguinchor ak feneen dañu dugg si àll bi di waxtaan ak ak paysans yi mais loolu ñi nga xam ne yàgg nañ ci mbirum gerte xam nañ ne doone bërët rek ñu ne 1000 points yëpp commencé na fonctionner mu ngi mel ne rek école bu dee ubbi mm. doone bërët rek ñu ne école yëpp ñu ngi ñu ngi jàngale am na yuy tàmbali ci bis bi am na yu nga xam ne ca kanam la ñuy tàmm. monsieur le ministre nan nga fekkee Sonacos ba nga koy jël. waaw comme ni ngeen waxee rek c'est-à-dire Sonacos société société nationale damay fàttali rek ne euh, Sonacos dafa njëkkoon nekk société nationale ñu jaayoon ko. waa jaayoon ko mu tudd Suneor. pendant fukki at ñu gis ne njaay moomu ñu ko jaayoon dem na ba indi ba mu gël góoseel li nga xam ne moom mooy euh, filière bi. président Macky Sall bi mu jotee ci réew mi mu jël mesure bu nga xam ne ba tey jii travailleurs yi dañ koy saluer dañ ko ciy sant di ko ci gërëm mooy mu jëndaat Sonacos. ci ñi nga xam ne ñoom la ñu ko jaay. situation bi nga fa fekk. loolu moom laa lay moom laa lay décrire nii. donc ñu ngi ko jëndaat 2016 gouvernement mu ngi ko jëndaat 2000 2015 2016. nommé benn directeur général bu nga xam ne la mu mënoon ak ku lay taalaam def na ko. ak jamono ba nga xam ne moom la dëppoo lool ak jafe-jafe yam fa fekkoon dawal ñetti at président de la république bëgg a accélérer processus de relance bi jël ñu teg ñu ci boppu boppu kër gi bien entendu bi ñuy ñëw bu bi ñuy ñëw lañu fa fekk boo ko comparé ak le monsieur Pape Dieng jotoon Pape Dieng jox na ay jéego mais ba ñu ñëw aussi fekk nañ fa ay jafe-jafe bokk na ci mën na am dañuy dem pip xëy na dellu siwaat mais bëgg naa nga leeral ma foofu parce que Pape Dieng bëri nañu wax ni ni lu dal Sonacos moo ko teg ah man du ma wax loolu xañ na ña koy ña koy wax nag ñoom bu leen neexee ñu wax ko mais man daal duma wax du ma wax loolu li may wax daal mooy bi ma ñëwee fekk naa fa ay jafe-jafe bokk na ci dëwlin bi euh, jarul woon euh, bokk na fi banque yi euh, singili woon nañu bokk na fi partenaire muy suñu muy fournisseurs yi daawuñu leen mosal dara bokk na fi retraité yi ak euh, ñeneen ñi nga xam ne dañ doon dañ leen ameloon daawuñu leen euh, fay bokk na fi tamit euh, ay stock stocku gerte yu nga xam ne 2016 2017 2017 2018 2018 2019 fekkoon nañu ko fa mu fay jóge bon fekk nañ fi tamit ay atelier yu nga xam ne dañu dañu paan atelier détoxification atelier li ñuy wax extraction et cetera et ban ñooy ba léegi nag yooyu la ñuy sumb d'abord doxale waxtaan ak suñuy partenaire parce que pour man waxtaan ci la lépp ci la lépp xaj waxtaan nañu ak partenaires yi muy partenaires sociaux yi muy syndicats yeeg ñoom seen cadres yi mu fa fekk waxtaan nañu ak fournisseurs yi waxtaan nañu aussi ak banque yi ba waxtaan nañu aussi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk Sonacos boobaak léegi ñu ngi déroulé. Mhm. yàlla mu ñuy defal jàmm. ay jafe-jafe tey ay jafe-jafe nga fa gën a gën a gën tane. bu ñu mënee dem seetaani page pub bi daal di dellu si waat pour la seconde partie.